jërëjëf sëriñ Xaadim Gueye sëriñ bi ak bokkam yi yëpp ak taalibe yi kenn ku ci nekk ci ndigalul sëriñ bi xolam sedd na guy xelam dal na yaakaaram itam dolliku na kon yàlla nañ ko def at yu baree baree bari ci sa wadde ko kaaraange jërëjëf bisimilah asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp ak ñëpp ñi nga xam si rek day nañ ci barab bi di nuyu Serigne naa géey ak njaboot ak Alaaji géey Gueye gépp ñu ngi nuyu mbokki taalibe yi man Ndiaga Thiam Badara maa ngi wax ci turu daayira Ahlu Badar di wax ci turu daayira Ahlu Badar di sant rek nag ak xol bu sedd guy ñun waaxlu badar bu nu am di la ko seedal yow sëriñ bi ndax misaal mi mooy danga yor lii bis bii bis bu tedd bii misaal mi di nga yor lu mel ni géej ñëw bokk ak ñun suñ kopp xeebu yi loolu nag day doon ñun ab soññee bu réeré ñun daayira lu badar di ci yóbbaale daayira yëpp ndax ñun daayira bu ñëw rekk ñun nga ñëwal ndax ñun ñoo dëkk fii yéen ñëpp ngeen sos ay daayira ca barab bi ngeen nekk diñu fekk ci barab bi di nu jàppale ci liggéey bi ba mën ci sax fopp nag muy Tëngéej di Touba di Géejawaay di bépp daayira rek ñu ngi lay sant ñu daayira lu Badar di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax di ànd ak mbégte bu rëy rëy fu waay nekk ñu ngi lay sant di sant sëriñ bu baax di soññ sunu bopp nag ñu daayira lu Badar ndax lii kat lu rëy la bis bii kat di bis bu rëy ñu yor lu ndaw a ndaw ñu boole na ci ba nuy dara ci bis bi loolu soññe la bu réer réer ci ñun kon nanu góorlu bu baax a baax sëriñ bi ñu ngi lay seedeel sunu sant ak sunu mbégte ak son suñ xol bu sedd guy ci liggéey bi nga xam si ni boole nga ci liggéey bi ñu liggéey nañu itam lu nu war rek la doon ko war a ànd yow rek ca duñ dëpp benn yoon ñu ngi sàkku ci ñaan kàttan guñ ko mën a ànd yow ba keroog fa ko suñ borom soobe rek te yàlla na yàggul lool nag nga yàgg koo jiite ñu yàgg la koo jox barke Cheikh Khadim bëgg nañ bu baax a baax fonk nan la bu baax dayre bi yëpp yow la ñu nooyee dayre yëpp sax laay wax xoli seet nu guy ci yow kon ñu gën a góor góorgóorlu rekk te gën a xam ni liggéey la boo xam ne du jeex tey jii lay commencé waat jëm xare badar commencé waat xare badar jëmaat gàmm ak badar noonu la ñuy doxee dañuy gën a ñaaxat suñu bopp nag gën a góorgóorluwaat di waat ñaan ci sëriñ bi bu baax a baax mos mu yàlla nu ci lépp lu di pàkk rek ca defal nu tawféex yi suñu xol yeeg suñu jëf yeeg suñu yéene yëpp jëm ci liggéey bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la jébbal sunu liggéey yow sëriñ bi ànd ceeg mbégte gu rëy rëy rek ñu daayira ahlu badar jërëjëf sëriñ bi taalibe yi njabootu Cheikh na Cheikh Abdul Xadim ñoo ngi nuyu bu baax a baax di ma saw coono ak ñeewante gu yaatu gu nekk ci ñun jëm ci yéen jiital ci nuyoo boobu sunu wasila sunu yaakaar ba Cheikh Mouhamadul Muntaxa te di ko ñaanal sunu boroom yokk ak wéram bi barakati Cheikhul Khadim yéen mbokki Badar ñoo leen di nuyu bu baax a baax ak fu nit mën a jóge rek bàyyi ko fa sa yitte fekk sunu ci barab bi sunu cant joxoon nañ ko Cheikh Amadou Moustapha mu agsi woon jàll ci yéen ñuy feddaliwaat cant googu rek génnewuñ wuñ ci kenn nag mbooleem lu ci waay def yëg nañ ko coono bu ci nit daj yëg nañ ko waaye noonu yi ñu ci sonne ak yooyu ñu ci def nañ ko dégg suñu borom bi nga xam ne moo man te mën a fay te ko lu ko nit defal mu fay la ko njaboot gi yëpp ba buñ kenn góor ak jigéen ñun bokkal sëriñ bi kenn ku nekk gis na coono bi nga xam ne moom lay daj ci bis bi ba bu ñëwee yitteem yépp yëpp yëpp lay bàyyi nekk ci am na ci ñoo xam du ngeen leen gis la ko waral mooy fañ nekk dañoo jot ni liggéey bépp ñoom la war ñooñu tam fañ nekk ñu leen fekk di leen sant ku ci benn ni Cheikh Abdoul Fadil bari na ñoo xam ne mën nañoo ñëw ci bis ba jóge fa duñ ko gis la ko waral mooy dañ ko dénk loo xam ni fa nekk mënu faa jóge dina ci biir nit ñi te du ca bàyyi koo mukk gis ngeen cérémonie bi ñuy def ni mu mën a toll lu tax mu jóge fa mu nekk ñëw fii ci ñun kon kooka tamit ak ñam àndal liggéey ba fa nekk yàlla na yàlla fayal boppam Cheikh Abdoul Ahad gis ngeen ko rakk la waaye yéen ñëpp yéen a ngi koy seen seen biir ndax lañ ko dénk rek ca la nekk Cheikh Abdoul Khadir tam gis ngeen ko kenn ku nekk ci ñoom rek liggéey ba nga xam ne dénk nañ ko ko dara jarul jarul ko mu koy bàyyi di nekk ci leneen loola ngir bëgg bis bi jag ñun nag suñu boroom dañoo dimbali jaarale ko fii ci Badar mag ñi tànnal nu barab boo xam ne jaroon nañuy daje di sant yàlla muy boqaxa bii ñu nekk nii am ko rek jar nañu daje di sant yàlla waaye mag ñi suñuy mag yemun woon ca loola doy lawun woon loola yar seen bopp ci diine yar seenu njaboot ci diine ba tey ji ñun ñi diine jooju ci lan nekk amul kenn ci ñun koo xam dangaa ngaa judd di tuubaal da ngaa judd rek nekkub jullit ñu lay woowee Moustapha wala Mouhamad loolu doyoon na jaroon na ñu daje di sant sant suñuy mag yemun ca seen jamono li fi nekkoon teppoon njariñ ñu tànn la ca gën du seexoon Seex Ahmadul Xadim tànnal nu ko ñun ñii kon ñun loolu rek doyoon na ñu taxawoon ñu taxawoon di sant suñuy mag waaye alhamdulilah rabbil alamin ba ñu yàlla dimbalee ñu bokk càll la gu toll noonu boo xam ne jamono ba mu jotee dañoo tax lu baax a baax muy seexul xaddim jamono ba mu jotee dañoo judd fekkee ñun ay jullit jamono ba mu jotee tànn barab boo xam ne dañ faa indi seenu njaboot di leen ci diine te di leen jàngaru liggéey mag ñëpp loolu ci lañ leen di yaroon alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin ba loolu yëpp matee ñor tey jii ñun ñu koy jariñoo kon ñun waa Badar njabootu sëriñ bi ñu dëkk ci dëkk bi yépp sunu cant jël nañ ko teg ko sama loxo ma delloo ko képp koo xam ne bàyyeekoo nga ci barab boo mën a bàyyeekoo ñëw fi rek yàlla la yàlla fay tànk yi ak fu nit mën a jógee yitte joo amoon pas-pas boo am njàqare goo am rek nanga ko ci fas si yoon bi yàlla na ko suñu borom defal aw yiwu yaatu lool te lépp luñ ci fase suñu borom defal nu ko ba bu déwénee bu dellu seen dinañ xam ne lañu defoon daawkat jar na ko jaroon na bàyyi ay yitte jaroon tëj ay bitig jar na tëj suñuy kër ngir ñëw ci barab boo xam ne loo fa faj loo fa fas ci saafara suñu borom saafaral la ko alhamdulilah rabbi xam ne bu ñu yàlla mayee barab bu mel noonu ñu sant nag suñu mbokki dëkkandoo yi nga xam ni yàlla dañoo def ñu bokk ak ñoom gox bi te gis ngeen yitte yi ba mu jógee ba léegi kenn ci ñoom toogul seetaan mën a bàyyeekoo fu ma ko mën a woowee rek lam doon def bàyyi na ko ñëw fekk ma ci ngir jàppale ma ci bis bi la ci gën a xeebu rek mooy ñi nga xam ñoo doon liggéey jiitu gàmmu gi tàmbali lu fi nekk rek ñoo ko def lu gis mu jag rek dëkkandoo yee bàyyiwuñ ci kenn nag duñ ci lim benn dëkk di bàyyi benn dëkk ñoom ñëpp kenn ku nekk rek di dëkkandoo di dëkk ak ñun lañ ca def xam nañ ko yàlla na ko suñu borom fay yéen mbokki daayira yi nag ñun ab liggéey nañu sëñ bi bàyyee liggéey boobee nag ñun ñoo ko war a yanul suñu bopp ba dellowaat ko ko kon nag yàlla nu yàlla may yitte ju kawe lool ban xam ni liggéey bii kenn duñu ko defal maam kenn du jóge fenn duñu ko defal déedéet ñun ñooy xam kenn àndaloon yéene ji nga xam ne moom la amoon ci liggéeyal ko Cheikhul Khadim yéene ji nga xam ne moom la amoon ci ndaw ñi yéene ji nga xam ne moom la amoon ci njabootu lislaam bi kenn ku ne bàyyi la nga nekk nekkal sa bopp loolu dara dul kenn ku nekk ci ñun yar sa bopp ak foo mën a nekk ak ci loo mën a nekk nga yar sa bopp ba mat sëkk ba xam ne nii bu la sëñ bi fekkoon de doo doo doo doo wëlbatiku ci dara te moom de yàlla bindoon na ko mu yor melokaan woo xam ne lenn la rek mooy ku mu fekk nga nekk ci la nga war a nekk fa nga nekk fa la lay bàyyi du la wax dara du lay romb dem yoonu kon nag ñun ñëpp ñu góorgóorlu ci te kenn ku ci nekk fa nga nekk ak lu mu sori sori sori nga xam ne bi nga nekk ak badar la ci yow. nga sàmm sa bopp sàmm sa lépp li la wër boole ci sa njaboot ñu leen di soññuwaat bu baax a baax fonk seen diine ji leen soññuwaat bu baax a baax ngeen fonkaat kan mooy Cheikhul Khadim ndax jamono jaxasoo na yitte yi bari na li li yàq fépp lay àgg bawul kenn bawul fenn waaye na kenn ku nekk ñun sañ ngaa góorgóorlu sa bopp góorgóorlu ci sa njaboot ndax loolu moo ñuy sàmm ñun dara loolu nag mun noo sàmm nag ak fan mën a nekk nag lu mu sori sori leen rek mooy li ñuy sàmm mooy li ñu diggal ñu nekk li ñu tere ñu bàyyi ko ñu jagleel ak nuyoo nag sëriñ Moustapha bi nga xam ne mooy kilifa dëkk bi te kenn ci yéen gisu ko lu dara waralu ko tamit nag dafa yor ay rakkam yu mat sëkk lañ doon mu bàyyi leen liggéey bépp ñu ciy góor di ko defal nag ni ñu ko bëggee moo taxit moom itam wutu ci dara waaye ak cantam jóge na ci moom jëm si ci yéen. ñoo ngi leen koy teeral bu baax a baax di ngeen xam ni euh, fii kenn rek moo fi nekk moom mooy sëñ Tuubaa te ñun ñëpp moom lañu yaakaar suñuy maam tam lool rek ci la ñu yar amul leneen luñ nekkoon lu dul loolu moom itam ca loolu dong la nekk soxlawul ci boppam dara bëggul kenn di ko gis ci dara waaye nag yéeneem mooy fu nu mën a nekk ndam li nga xam ne moom la ñuy sàkku te di ko sàkku toolu Seexul Xadim bi suñ borom may na ko ci kon kàddu yi kàddu sant la woon di leen xamal ni bis bii kat bi ko sëriñ bi wootee woote na ko fu nekk nag ak fu mu mës a nekk rek mës a toog di ko di woote di dajale mbooloo di sant suñu borom di dajale mbooloo ngir xam ne kan ma Cheikhul Khadim di dajale mbooloo di leen jariñ ci àdduna ak àllaaxira fu mu mës a dëkk nag fu mu mës a dëkk ak moom tam xam nga ko bi mu demee ba lépp mat ca la ko yenu indi ko badar gii kon kooku bëgg nañu dimbali ndax fu nekk mënoon na ko faa defee fa la gënoon a yaatoo fa la gënoon a jege nit ñi te su boobaa waa Badar mi yaakaar naa bu leen wutalee ñaari oto danañ xaj ba ñëw fekk ko fa waaye déedéet wax ne ñëpp nañ ma fekk Badar kon kooku bëgg naa dimbali waa Badar ku ñuy waa Badar day bis bi seenu bisa bokku leen ko kenn nag ku leen di fekk da leen ciy dimbali kon ngeen war a soññiwaat seen bopp ci loolu bu baax a baax te góorlu ci te xam ne yéen ko moom kenn moomalu leen ko nag sëñ bi nag moo leen ko tànnal ba mu leen ko tànnal leen itam dimbali leen moo taxoon mu tànnal leen ko aywa jot nañu xam ne nag kon dimbali ñu moo taxoon ñu indil lu bis bi fii ci Badar ngeen koy taxawaay laxasaywaat te xam ne lii ñoo ko moomal suñu bopp ndax kan nga kan xam ne moom la ñu yaakaaroon ko amoon yaakaar ci moom lool ndax jikko joo mën a wax ci moom rek feesoon na ca dell jikko joo mën a wax rek na ca dell dimbali nit ñi nag daa bokkoon ci la gënoon a kawe ci ay yitteem ndax dimbal nit jaral na ko dox bàyyi yitteen yëpp jóge fii dem ba ci barab yaakaar lenn la fay ngir dafa am koo xam ne dafa war a dimbali rek foog ñun nag bu ñu nekk xëyee ci njabootam ñu ni tudd di ko tudd wala ñuy tudd badal di di ñu tudd kon war nañoo fonk suñu bopp bu baax a baax jàppaat bis bii jàppaat dëkk bii ndax amul lu dul moom loolu ñu waa badal gépp ñoo ko bokk nag kenn génn sa sa bopp bu ci kenn génn bokkul tamit xale yi nga xam tamit suñu borom da def gis ngeen ñu taxaw ni suba ba léegi kenn noppalu ci sapeur si nga xam tam bagage yi nga xam ñoo fi ñëw ñëpp ñoo ko fi indi am na leen ak cant ñoo ngi leen koy sant bu baax a baax yàlla yàlla defal leen ko loolu ngeen di liggéey dem suñu borom barkeel leen ko ba jamono juñ ko soxlaa fu ko soxlaa gis nañ yitte yi ngeen def ba indil ñu ko bàyyi li ngeen def lépp loolu tam yàlla leen ko fayal boppam mm-hmm. sant sama bopp yii nag boobu ma ci kenn am ku ma ci jiital rek mooy Cheikh Amadou Moustapha mi nga xam ni moo nekk seen kanam di jëwriñ jiitale ñu ci lépp amul amul lenn loo xam ne dinaa ko digal wala wala mu cee duggul te sama xalaatu bopp bi doyu ko ci kon nag yàlla ci yàlla may ndam damaa amul jenn rakk joo xam ni ndax li may def daa génn da leen a génnul ñoom waaw génnu leen comme génn leen nag mënu ma cee mun ma cee jël kenn di ko sepp di bàyyi keneen dama xam daal mooy ka tàmbalee ci kañu mag ñun ñëpp muy soxna mi géey amel nañ ko cant waaye moom itam maa ngi koy maa ngi koy soññi mu ñaanal ak njabootam ba suñ borom dimbali leen ba yéene ji xam ne ndaw ñi am nañ ko suñ borom man leen ko mottalil bi barakat Cheikh naa Cheikh Ahmadou Khadim moo xam muy góor moo xam muy jigéen sàkkuwoon naa ko dinaa ko sàkkuwaat su mag la soxla maam faama bis bii ñoo koy am bokk ak moom li tax teewu ci boroom këram suñu borom dafa def mu génn àdduna ci jamonoy màggal bi amoon na yéene ji amoon na pas-pas bi waaye gàllankoor bu lislaam moo tege ci kawam ba tax mu toog fa mu nekk bokkut ak ñun bis bi waaye njabootam gépp teew na kon nag ñu sàkku tam borom kër boobu di Maxtaar Caan ñu ñaanal ko fa nekk suñu borom dimbali ko yërmaanam ji yaatu ji nga xam ne moo tege ci kawam suñu borom tegal ko ci kawam ba fa mu tëdd. lépp lu yërmande rek suñu borom fekk faak moom ndax borom pas-pas la borom yéene la te bis bi tam ku ci daan jàpp la noonu nag noonu lañuy wàcc itam ba si wàcc njaboot gi nga xam ne gépp dañoo bokkoon ak ñun bis bi te suñu borom jëla leen fi ba tey jii mënuñoo teew di ko bokk ñun ak cant la gu lool waaye génnewuma ci kenn ku ci déggul sa bopp rek yaa ngi ci biir daa matut ci lépp kon ñuy sàkku soxna bi moom itam nga xam ne suñu borom da koo def mu fi El Hadj Serigne tey jii ci jigéen tey jigéen waaye lépp lu góor def moo ko ca biir loola. kenn gisu ko ci yéen la waral mooy daa am fu mu nekk am lu muy def yàlla na ko yàlla fay liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey ci barkeem maamam Serigne Mor Asta ñuy sàkku ci moom itam mu ñaaral xale yëpp njaboot gu daayira yi yëpp rek. ak njaboot bu sew gi nga xam ñoo ne ci biir kër gi la tàmbalee ca mag ba ka ca gën a nekk ndaw di Abdourahman ak soxna Maguette Jaxate gi yàlla yàlla defal leen jàmm yéen ñëpp yàlla fay leen defal ko aw yiw suñu bis bii defal lu ay wér yu lool suñu bopp suñu njaboot ba mën ko fekk at yu bari lool suñu dëkkandoo yi nga xam dañoo bokk ñoom dëkk bi di ahlu caam seen caw jóob yàlla na li yàlla fay seenam liggéey te leen soññewaat ngeen gën a fonkaat dëkk bi yéen itam ndax ñun kat badar moom bu ne ni caam ni caw ku ci nekk war ngaa taxawaat taxawaay boo xam ne da lay wér la dëkk bii ba fi sa maam di jógee barab ba mu mënoon a jógee ñëw fii yaakaar ju réy moo fi doon yaakaar jooju nag du jeex ba mukk li ci jaadu rek mooy li ñu war ñu nekk ci rek kese di sant sama mbokkum bopp moo xam ne cant gi moom sama biir lay nekk waaye yéen ñëpp xam ngeen ko mu Cheikh Mahmadou Lamine di doomi Serigne Cheikh di sëtub Serigne Bara Khourédia di doomi Mamor Diarra Mamor Diarra di mbagi Cheikh naa Cheikh Mahmadou Khadim kóllëre gi nekk sama diggante ak moom sosum ko maag moom ca mag ña ba mag ci ñun kon li ñu ci war rek lañuy def moo xam fu ngeen ko mën a gis ci suñ biir ak suñ biti amul luy umpande suñu dund ak ci biir njaboot gi lépp ak mbaaxam ak woyefam nag tax na melokaan wii mu mel mën ngeen ko ci gis rek ndax jàmm ji bari na yitte ji kawe na léeg-léeg dama dama ko wax ne suñu baar jëru jëru ko waaye jëru ko googu moom du ko tee def la mu war a def te la ko waral tam mooy yërëm ko ci rek ndax barab moom dëkk sori na waaye gis ngeen ko bu jóg njabootam gi këram gi du fa bàyyi kenn loolu tam ngeen ñaanal na suñu borom dimbali ko ba liggéey yi nga xam ni moom lay naxal te am ci yéene suñu borom jàppale ko ba mu woyof toy ci moom ndax ku am yitte ju kawe la ndax la ko war moom ca waajuram la la la mat na sëkk bu dee waajur yeeg sëñ gi nag moom dañoo bokkoon lépp bokk lépp nag amul amul boo gisee sëñ Gueye gis nga sëñ Muudu ca fulla ja fayda ja yi tëju kaw ja bëggin bëggoon Seexul Xadiim nga xam ne amul yenn caaxaan looy doxaan di nga dox ba fekk sëriñ Muudu nekk ca déedéet walla nga fekk ca kenn ci njabootam déedéet amul ci biir këram déedéet jëm jooju nag ci biir këram lañ toqee koo nag moom itam ñoo ñaan suñu boom dimbali ko ba defal ko yërmaanam ji yaatu ji ci barkay maamam di boroom saam yàlla na ko yàlla sàmm mm-hmm. te sàmmal nu ko te mm-hmm. bàyyil nu ko fi suñu borom may ko wér mm-hmm. ju kawe lool ndax ndax maamam ji di sëriñ Bara Khourédia ñu ko dëppee daa bokk ci mag ñi nga xam ne bi sëriñ Fallou yëkkatee bis yi nga xam ne dafa daan yëkkati dafa bàyyi woon léppam laxasaayu ànd ak sëriñ Fallou ba may ko li mu ko may kookee nag bu ab sëtam toogee fii bàyyi yitteem yëpp ànd kook ñun ànd ak njabootam yëpp tamit ak cant war naa jóge ci ñun delluwaat ci moom jërëjëf yàlla na wasalaamu aleykum wa rahmatullah salaatan tunajji biha min jami ahwa wal afat wa taqdiruna biha min jami haajati wa tutahiruna biha min jami sayaati wa tarfahuna biha indaka ahal darajaati wa tuballighuna bi ahsal xayaati min jami xayaati al hayaati wa baxdal mamaat waftah lana kulla baabin kunta faatihahu li saa'iril axyaam wa lam yuhaajiru ma lakum min wilaayati min shay'in hattaa yuhaajiru wa lam yuhaajiru ma lakum min wilaayati min shay'in hattaa yuhaajiru fi sabilillahi in samsanakum fi diini fa aleykum an nasr ilaa alaa xamin baynakum wa baynahum misaaqun wallahu bima taxmaluna basir ak Cheikh Xadim